Yap yap. bu ñaaw foofee ca diwaanu point e, xàll ba jëm pharmacie ba ginaaw xibaar yu ñu am suñuy ay source waa ji ab taximaan la waaye dañ ko jam dóor ko dóor yu métti boo xoolee li nga xam ne moo jot a xew ginnaaw ñi ñu ko baaxee moom moomee nag ñu ngi xamal ci xibaar waajoo xam ne la mu ngi dëkk foofee ca diwaanu yëmbal taximaan boobee noonu ginnaaw ba ñu xoolee information yi waaye waa ji waay boo xam ne la njoolul gàttul maanaam ku si koo xam ne ci diggante bi la nekk rëyul tamit dafa tuuti waaye ñuul moom moomee nag ba muy dem ci taxem mu ngi soloon ab benn tubay mooy jean bu bu bleu ak li nga xam ne mooy ab tiset bu verte ba mu génnee këram démb loolu la fa génnee ci xibaar bi ñu jox moom moomee nag dañ ko fekk mu ñu rey ko ci biir taxem dugal ko ci xamuñ nag ñen ñoo def loolu waaye ci xibaar yi ñu jot jàpp nañ ne ñi ko def du benn nit dafa mel ni danoon xeex ak ñi nga xam ne ñoom la yeboon ci otom ñooñ ñooñee faagaagal ko nag rey ko rey bu ñaaw duguleet nag ñu gis ñuy def lu mel ni senegal rawatina ci safaru taxi ginnaaw nag suñu yoon am na ñoo xam ne yor nañ liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci police Sénégal xam naa ni du yàgg nes tuut dinañ jàpp ñi nga xam ne ñoo def ñaaw ñaawteef bi nii jot na nag ñu xoolaat mbir yi senegal saa ñu xëyee diw rey na diw diw jam na diw démb nag gis nga li nga xam ne taksimaan boobu moom nañ ko faagaagale mu nekk lu méttee méttee métti